na bayre boo xam ne itam dangay ngay siiw da ngay siiw mën ngaa siiw waaye doom xaalis am na beneen mbër moo xam ne boo ko ci daatoon ngeen xam ko siiw na waaye yorul daal te nag kenn ëpp ko ci bayre moom yaaw jaal ku ko bayre ci làmb ji li mbëri am da ko am te moom siiw moom làmb moom boo doon liw ñuy siiw moom doo ko ci génne te ñu ko bëgg a bari fu mu romb ñu yuux ko duñ ko bëgg ci xeetu bayre yooyu daa am benn bu nekk nag ak na koy amee si nag gis naa ci ñuy joxe ay xeetu bayre ci ci ci ci sidéeg yooyu am na bayre yoo xam ne ku ko sangoo di dugg kaso door am li nga bëgg. surtout ñu ngi koy joxe di ci wax yoon yàlla Yuusufa boo ko miir yi si daa dugg ba noppi. ah. léegi nag am na xeetu bayre ñuy liggéey ci Yuusufa di ko joxe am Yuusufa daa am lu ñu koy liggéeyee daa am lu ciy dind am lu ñu ciy dugal. yaa ngi dégg buñ la boxee bay roy nga dem bind lu ko balaa affaire bu dee jàpp na nag ñi sangoo saafara ñu jàpp ñu néew leen xaar ma ñëw yéen ci saafara nag. waaw saafara ma dimbale ko nit ñi saafara daa am nu koy mélanger su la bindalee alxuraan ba noppi moo xam ki la ko bindal du ko bind ci alluwa daal di daal di jël coton fomb ko jox la ko wala mu bind ko ci feuille wala mu bind ko ci seetu raxas ko jox la muy saafara ak xeet gu ko mën a bindee ni ni bindee bari na. du nekk ak daal laaj fu ñu koy bindee fi mu ne bayre dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yi ci ëpp doole bu ñu koy bind ci verre lañ koy bind a ci seetu seetu boo jàkkaarloog seetu koy gis seetu laa wax boo jàkkaarloog koy gis sa bopp ngay gis ku xool boppam lay gis te nit bañu boppam fii nga ko déggee déggoo ko fen ma li ma la fii nga koy déggee laax doo ko déggaati fen bayre laay wax ak de am na bayre yoo xam ne lem lañ koy bindee buñ ko bindee lem daal di teg ne ba weñ yi sam ko bu baax a baax a baax nga door koy jël rax sangoo ko noonu la nit ñi mel ci surtout bayre place nag yooyu ci gën a gaaw. am sa place bëgg ful mi ñëw. mbooloo mi rek ah yooyu tabarkaal la dina am yu ma ci joxe waaye yeneen yooyu ku ko bëgg moom waaw. foo foo daay daay yëf la yëf la. yaa ngi dëgg léegi nag saafara bu la ko bindalee ba noppi moo xam danaa wax boole ko ndoxu géej wala ndoxu dex wala ndoxu robinet doo ñëw jël. saafara sa teg ko jël ndox ma sotti ci kawam déedéet alxuraan dara du ko féete kaw. bu la waxee boole ko sunguf doo jël saafara jël sunguf bi sotti ci kawam déedéet bu la waxee boole ko parfum doo jël parfum sotti ci kaw saafara alxuraan dara du ko féete kaw. te bu waxee dañ laax day ànd ak suufu marché ak suufu jumaa ak suufu nangam-nangam suuf si noonu balaa nga ko booleeg saafara da nga koy da nga koy xent bu fekkee sobe da ko toppoon sobe ga deñ dem tubb suuf rek suufu marché fekk fa nga ko tubb ci marché ba saw nan fa nga ñëw jël ko teg jël alxuraan boole moom soobee nga koy ba alxuraan la nga ci bëggoon contraire ba nga am bu neexee karaw karaw ba ngay jël di ko boole da jël karaw ga dugal ko ci ndox raxas ko tent ko mu wóor la ne ba dëñ na. sëriñ bi ni kenn may donc comme sa dégg fenn. man maa lay wax mbir yi nii nii ma la wax nii doo ko dégg feneen fu man ku ko waxaat nag fii nga ko déggee. vidéo boo leen gis ñu waxaat ko fa xool leen date bi xool date bi fii nga ko déggee. yaa ngi dégg léegi nag da ngay jël bu fekkee lu dafa war a ànd ak yooyu yëpp da ngay jël ndox def ndoxu kase jëlee nga war a def yëpp muy parfum nga def ca bu dee daan rek suuf nga def tend ko kon ni ma la ko waxee def ca bu dee sunguf la war a àndal nga jël sunguf sa def sa sunguf yi léegi tamit nañ si wax bari na ñuy jaay sunguf ñoo xam ne da ngay soxla bëri wéngal ñu ut seen tuuti bëri wéngal jël ñax mu bari boole ca di ko jaay def ko sunguf. damaa ne ci réew mi réew mi dama fee ne xam li xew yaa ngi dégg moo tax ñu ci bari la ci gën utal sa bopp dem utal sa bopp da boo ko mënul nag mën ngaa jënd ci ñoom waaye bari na nekkul ñëpp nag waaye bari na ñu koy boo defee yooyu yëpp ba noppi nag jóoru jël bi sotti ci kaw alxuraan mooy féete kaw teg ko fu làpp boo demee ba des sangu nag balaa ngaa sangu da ngay jàpp boo jàppoo leer bu ñëw mën a dugg ci yow la ngay sangoo leer leer gi mooy dugg yaa ngi dégg nga jàpp ba noppi taxaw fu làpp waxuñu la nga sangoo ko ci duus waxuñu la nga sangoo ko ci paan ba noppi jël paan dañu jël fu salte sotti fa ndox ma loolu moog sangoo ko fu salte yam taxaw fu laab daal di ko sangoo taxaw nag ba fendi bu fekkee fa nga doon sangoo da ngaa taxaw ci paan sangoo nga xool fu laab nga sotti fa ndox ma bu dee yére la boo jëloon boo soloon di ci sangoo saafara sa yére boobu boo ko fóotee nga sotti ndox ma fu laab waxuñu la nga fóot ndox moom sotti ko ci duus yooyu nag daa mat a leeral léegi nag maa ngi woon ci bayra yooyu yëpp dafa am façon wax naa la fi bayra boo xam ne nit ñi da ngay siiw te kenn du la bëgg boo xam ne dangay dañ lay bëgg waaye doo am ak yooyu yëpp léegi nag ki nga xam ne dafa nekk joueur wala mu nekk mbër wala mu nekk jànkat wala mu doonub sëriñ sax bu mën a doon bëgg tur ak woykat yi yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg danaa wax secret boo xam ne lu baax a baax a baax la baax ci yaawa dudd tey fa lay tàmbalee danaa jël émission boo xam ne spécial bayra lay doon bayra yu kenn mës dégg te dinaa joxe ba joxe lu sëriñ si ñemewut wax ah. ah waaw waaw yaawa duudu nga bind ko 20 lu yomb laay joxe lu ñëpp mën a def tur yàlla la mhm. sa man dama wax tur yàlla ah, damay liggéey ci yeneen yëpp waaye duma ko joxe nit ñi ci yàlla laa leen jox li tax dama ko joxe mooy mm-hmm. xam nga daf cee bari yoo xam ne bëgguma gëmloo ko nit ñi yàlla daa gën a gaaw lépp waaw kay nag foofu nag daa ma a leeral da ngay dégg ku ne reen moo gën a gaaw alxuraan waaw benn côté bi dama koy nangu benn côté ma bañ ko côté bi ma koy nangoo fenn la sungu ak reen boo bu fekkoon tey jii dama cee defal bayre defal defal kee bayre alxuraan yow sa bayre mën naa ñëkk jàpp waaye bayre bayre abu ci ba loolee nii rek nii na ma baal na ma baal. Ama Baldé exemple bu ma ko jox da nga ko jox ci nit ñi ku nit ñi xam su ma tuddee su ma tuddee beneen beneen beneen beneen gone fii xamu na ko dama naa tudd waaye moom dafa def nii rek def nii bayro yooyu la bu dee alxuraan nag mën naa yéex waaye kaw rek la jëm boo deful li muy bañ te nag noonu la gaawee sax li waral nit ñi di ko sangoo mu yéex ci ñoom ñoom ñoo am nu mel ne alxuraan bëggul mënoo dëkkee nag ak am sobe bëggul moo tax ñëpp nekkul ñëpp ma am na ñoo xam ne su ma encaissé xaalisam ñaanu ko ci alxuraan dina am problème lu set sell ku dëkkee sobe tubaab du sangu set ku lu sangu set nga bëgg ko ñaanal ci alxuraan yaa ngi tooñ alxuraan man damay ñaan ci yéen yëpp am xam mu ñuul bu ci duggoon nga ne kii lu bon rek xam te mu ñuul am na lu baax am na lu bon waaye nag yoon ba moo sellut fi mu ne bay bay bii may wax nii am na ci yoo xamante ne si da ngay da ngay da ngay rey ñett ci ginaar dëbb ko. ñetti cuuj ginaar ngay rey dëbb ko laa wax def ko sunguf sangoo ko bay xam nga loolu zulmaan yi la. laay laay bayra bayra bu garaaw ngoog ginaar olof laa wax boo mel ni gi. yaa ngi dégg am na ci yeneen ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen te zulmaan yi daa ci gën a leer bu ñu tollee ci wàllum nopp waaye nag léegi nag bayra boobu na léegi nag boo jëlee seetu na ci yaawa duudu ngi dégg daal di ko raxas. mu doon saafara nga jël xalima ak feuille nga bind yaawaduud vingt waaye yaawaduud yooyu nga bind waaw gi danga koy yaatal dugal ci sa tur waaw yëpp moom tamit vingt nga koy bind bariwul nga def ko saafara ñoom ñaar ngay boole. góor parfum bi ñu wax waduud nga def ko sangoo incha allah ku la gis dina bëgg ci kàttanu yàlla bu dee da bëgg ñu dëgg sa tur nag nodd bii ngay bind. baat bu ne lim bañ koy wax ci nodd ba moom nga koy bind. waaw kay kii nodd allahu akbar da koy wax ñaata yoon ñaar déedéet ñaar bi tàmbali gi da koy wax ñaar yaa ngi dégg ba am nañu ciy baamu ñaar léegi ni mu koy baamoo noonu rek nga koy bindee yaa ngi dégg boo ko bindee ba noppi nga daal ut sëkk buy sab nga ba fajar dana sab ñaari yoon. waaye waa ginaar olof sëkk bu góor bu sabee sab gu njëkk gi. nga jël saafara si dugal sekk bi ci gën jël inde inde yaakaar naa inde lañ koy wax mooy yi ñuy tayee yi ñuy tayee teg teg ci kaw sotti saafara si mu wàcc ginaar gi nga génne ginaar gi teg na leen bu sabaatee nga taxaw fu kawe jël kook sangoo saafara soosu saraxe ginaar bi kenn mënu teen dégg la Sénégal kan Sénégal laa wax da nga koy saraxe ginaar da nga koy saraxe Sénégal kan moo fi toog heure julli du dégg noddu fa fan fan la ginaar nekk du dégg mi sab dañ lay dégg laa wax loolu nag xam naa ne ma kilifay baal ay mbir la yu gàtt yoo xam ne si am na ci yeneen yoon yeneen yoon yoo xam ne mën naa ci lim yu dul jeex fi mu ne tëggkat sabar am na tama bi tama bi gën a foor damaa xam ndeer la tudd xaw ma nu mu tudd nga xam ne fu mu ne ram tam itam ñëpp dégg ko buñ ci tëggee ba mu fëkk nga jël nga jël derba waaw kay nag waaw kay nag nodd googu ba tey boo ko bindee laa wax ëwee ko loolu def ko ci place muy lang heure su yëngatoo ñi ñi ñëw fii nga ko déggee du feneen. yeneen ak yeneen ak yeneen yéen bis bu ñu tollee ci émission boo xam ne bari rek lañuy wax danaa wax wax la wax bi euh, numéro numéro Serigne Mar ngeen gis noonu numéro man man man ah, waaye numéro nga xam ne mooy Serigne Mar la ah, moom mi ngi nekk ci moom mi ngi nekk 54 euh, Kër Massar 54 ah, bi euh, loolu unité 16 xam naa ne boo ko woowee rek bu soobee yàlla lépp li nga bëgg rek bu soobee yàlla di ngeen ci waxtaan daal di ci ba daal di ci déggoo ci ndimbalu yàlla ak mbaaxam euh, euh, ci bayre boobu la ñuy des ba tey sëñ maar euh, bayre nit maanaam tey waykat yi ndax dañu ëppante bayre ndax boo duggee fii ci almadi da fekk ay cinq programme ay six programme kii di tëgg Vogue kii di tëgg Baara Mundi kii di tëgg feneen ah, def ma publicité nag bu ma defee publicité eh, ngeen nga Babacar nga baal ma xam naa war naa jaar service commercial ah, mais amul problème maa ngi jégalu bu baax comprendre nga eh, yooyu da ngay gis kii feesle kee ñett nit ko kii wala ñen ne woon ci fële ñëpp dañuy mujj génn dem ci kenn ki eh, xeetu bayre boobu ci waykat wi lan la maanaam mën wayam la wala bayre la dañ koo waajal bayre boobu lan moo koy indi ci nit ki bayre boobu day ànd ak pocket mooy wala gis marché lëmm magasin tant que jeexalul kenn du jënd du jënd feneen ñetti jaaykatu cere rang toog tant que kii jeexalul duñ dem feneen loolu poxeel waaw tant que yow say mbir jagul ba noppi feneen du am loolu nag dañ koy def loolu nag duñ ko joxe ndax mbirum xëccoo la duñ ko joxewal ko dee joxe du tey waaye mbirum xëccoo la ku ko bëgg nag boo jokkoo ak ñun nag dinaa am lu la ci defal waaw. waaye nag xam naa ne émission yii di ñëw dinaa am bu ma ci maye boo xam ne ci ci ñombar lañ koy liggéey am na ci yoo xam ne si cëggal gilleem lañ koy def am yoo xam ne si garabu rey doon lañ koy def. waaw yooyu nag wàllum politiciens yi xam naa ñoo ko gën a yittoo yaa ngi dégg waaw am na ak ñi jaay commerçant yi nga xam ne ñoo nekk ci marché yooyu ñoo ko gën a yëkkat yittoo ak ñi nekk ci place bëgg a doon kilifa ci place ci barab ba am ñu ko sekkal ñoo xam ne ragaluñu yàlla yooyu nag xam naa su ma ñëwee ci wàllum kaaraange sax danaa ci wax yoo xam ne ndax bari na xeex yi nekk ci place yeeg yooya waaw bari na ñoo xam ne yàq nañ leen ba léegi seen dara mënatu la baax waaw. Euh, sëriñ bi euh, loolu mu ngi leer te xam naa ne euh, dama bëgg benn bu ci nekk incha allah ñu def ci émission spéciale ndax xam naa ne du ko mate sax waaye dinañ ci mën am li nga xam ne moom lañ ci bëgg xam naa dañuy jóge foofu ñu ñëw ci li nga xam mooy kaaraange ndax ku ne bayre boo amee bayre imagine nit ñu bari ñoo ñëpp nit ku nekk ak li mu làmboo war laa wuy si war nga am nag lu aar nag sëriñ bi buñ duggee ci kaaraange sëriñ maar est-ce que moom kaaraange yor na ci lu wóor loo xam ne mun na cee dimbale jàmm. def nag yaa ngi door a waxtaan nag ah. ndax fi nga dugg mooy lépp kaaraange bu ko nit amul amul dara lu mu am du ko jariñoo bu dee dina am sax nag bu dee dina am kaaraange moom boo ko amul moom sax dara assuré wul léegi nag kaaraange dama ci sawar a joxe ndax danaa ci danaa ci seetlu yu bari da gis jigéen buy sëy ci kër jëkkër ja nekk fa amul dara mu di ko muñal jëkkër di xëy tukki nit ñi tàmbali ko yaakaare dara nga gis sa famille ba ñuy xëy di liggéey jëkkër ji ngir mu nopp benn xale bu ne ci koñ ba ngir mu fase jabar ji parce que ñoom fi mu ne jabar ji menacé pour ñoom jàpp nañ ne léegi lu koy yoroti ñoom duñ ci jariñu ndax jabar ji waaw. wala ki ko doon muñal ñu tàmbali ko xeex wala ñu ne lu tax jariñu ci kee kii la te amaana sax kee ay mbiram baaxagul kii day muñ ci sagu rek jigéen ñi sëy li may dëgg seen problème dafa bari. dañuy muñ ba dara du dara xëy ñëw ñu leen def wala benn xale bu jigéen boo xam ne ci koñ ba leen nekk fas yéenewul liggéey xëy sañse rek moodu moodu bu mu gis dem ci sëriñ liggéey la te bu ñëwee duñ wax dëgg dan naan la damaa nekkoon ak moom mu xëy bàyyi ma danoo dëdë te fekk mosuñoo nekk yow nga ma ne nobal leen kooku ñuy lekk alalam rek muur mën yi noonu lañ sonnee ku ney liggéey bàjjen liggéey tant liggéey ku ne liggéey xale jigéen ñi liggéey yaakaar leen loo xam ne ko maa ngi kaaraange gii ma joxe ñoom seen ngi ci waaw kay ki nga xam ne da nga nekk ci place di ñafe di ñafe ba yëg fa benn barab wala nga nekk koñ li yëfa benn magasin di liggéey ba ba tollu fenn fi nit ñi jàpp ne magasin ba nga nekk mooy doxal mbir yi te xamuñu sa jom bopp la xëy bëgg la faa jëlee lii may joxe sa wàll ngi ci. koo xam ne ab jànkan nga nga nekk mën a jàng lool mel ne El Hadj Pambaay mën a woy lool nga xam ne ku ne lay bëgg ñenn ñu rek ne déedéet comme moom noo fi nekk noonu ba ñuy gone programme tamit naa bari duñ ko may fu mu yàqee naqaam mooy jalousie sa wàll ngi ci. sëriñ bu nekk ci koñ di dëggal di sellal nit ñi di la wuy si am sa naataango yu fa nekk ne yee yaay doon la ci bàyyi sa wàll ngi ci. yow sëriñ yow samay gone lan foog ma leen jàppale. yaa ngi dégg léegi nag li may joxe ñii ñëpp yow mii def émission sa wàll ngi ci nit ñi ñoo bëggul ko avancé nga nekk ci toog bii yaa ngi dégg tàmbalee ami vie ñu ñu tàmbali laa bëgg am ko nekk ci koñ ba bëgg a xaw si bëgg laa def li ma wax nii nekkul ku lay liggéey kasa lay kii ku loon ku loon noonu sax doom jàpp. parce que nag ñëw toog di yàq sa der di ñëw naan maanaam jékki-jékki affaire ni jeb bi rek. Euh, gis la ci TikTok bi neexoo leen rek ñu am ku ñu soufflé ne ko diw mi xam nañ ñoo dëkk ci koñ bi yàqal ma ko. léegi nag lii ma lay wax nii lii ma lay wax boo ko saxalee di ko ligg dama dama dama jox la ñuy sangoo wax la sarax boo xam ne noonu du mën ceew dara wax la sunguf boo xam ne moo baax ci kaaraange wax la lu ñuy wérd nga xam ne yooyu yëpp boo ko defal toog di wérdi lii ku la ku la sànku waaw ku la songu sànku kuy jëm xaalis si sutura xëy suba sutura mooy xawee moom ak sutura famem du yem ci moom